ahlan bikum xaalaga si wax ja jeex na alkalaamu intaha léegi leer na nañ Sénégal dem nañu coupe du monde gannaaw bu ñu jàppee Afrique du Sud démbu di mbuqi di ko mbuqi di ko mbuqi ba muy bëgg dee ñaari bal ci benn enquête yéen a kaay ñu ko xamal stade yéen kaay na ko mbégteeg bànneex ci la askanu Sénégal yéen doo démb ndax stade Léopold Sédar Senghor fañ koo duy bam fees dell ñëpp sol lu weex drapeau yi di foyi foyi ca kaw li ci gën a neex nag mooy gaynde yi qualifié nañ te amuñu benn défaite seen jogante yëpp dañ koo mbuqi amuñu jël jaaxaan laas yéen a kaay na la leen njiiti réew Macky santoon moom lañ def mooy jiitu nag oppa nget moo loobe góol ba njëkk a zoom yéen a kaay kenn mënatut koo téye far force dañuy dem coupe du monde lañ doon sikki sàkk nag karaa jeexal na ko les éco yéen a gaynde yi kaay jeexal nañ jeexal gu rafet mbégteeg bànneex feetu Aliou Cissé nag nee na jéggalu te jéggal na ñëpp ci l'observateur moom Aliou Cissé nee sama mbégte nag du ko wane lu dul bés bu ma jëlee coupe jox ko Sénégal yéen bi na ko en tout l'observateur na ko démb ca estade ba soxnaa njiiti réew mi première dame soxna Marème Faye Sall wane na mbégteem mook njiitu jëwrin yi ak njiital au conseil ak ministre yu bëri le quotidien yéen a kaay ne li bëggoon a yàq démb mooy courant bi coupé woon te estade ba ba tax jogante bi tardé waa Sénégal gi nag weddi nañ ko nee neen courant wutoon fa doole courant bi nag moo wàññeeku woon nee neen sax njaaga njiital estade Léopold Sédar Senghor danañ ñu fa rey de les éco yéen a kaay ne gaynde Sénégal yi saraxu yalwaan gi ñu yalwaan ay terrain Macky Sall njiit réew mi ak ay passeport diplomatique ñi ci internet bi ñaawlu nañ ko na li ni mel dafa ruslu warul leen na maanaam duñ ko def aa yaaw seetal ñi gën a mag ci ku jégi maa ngi ko taxaw Sénégal nee nañu fekk bàyyi wu ñu ñoom duñu dem ci dialogue 24 heures yéen a kaay na gis ne Khalifa Sall googu ñuy sàkk ñu bàyyi ko am na leneen lu nekk ci ginnaaw lu dul summi rek malaadu kiraayam Le Soleil yéen a kaay moom duñu xamal ne lël bu mag biñ doon amal Ndakaaru ci wàllu jàmm ak kaaraange jeex na niki démb Boun Abdallah Dionne njiitu jëwri di moo dem amal tëj la bëri fa ñoo boycotté ñëwuñ ci forum bi njuréef yi tamit doy na waar wàllu organisation ba waxi nopp Alioune ci yéen kaay bi mel ni ku koy dëggal ne gis nga ne bañ commencé waxtaan presque lañ defoon moom lañ doon defar rek nay leer la leer ba yegg ca naan ñi mooy kër ak téléphone gu ñuy wax expresso ma ngay def lu dara jarut ay liggéey katam jëf ju ñaaw dàq kaj ji te teguñ ko fenn ba tax Dakar Times mi ñu ko xamal ne ab lobby bu nekk Soudan moo ko def paa bi daal fa am lu ko naqari këram mu dem ba ca teen ba daanu fa xaru faatu ñàkk bakkanam allah yëf yaa nga amee ca département bu Koungheul dëkk bu ñuy wax Yomong le financier na kaay ñu ko xamal paa amoon na juróom-ñaar fukki ak juróom ba léegi nag xamuñ